maa ngi leen di ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu maire yëpp maire Dame Ndiaye maire Mbaye Samb honorable au conseil des collectivités territoriales di nuyu également l'honorable député Ndeye Dia le maire Thilas Pouye le maire Djibi Thiam et le maire Diaga Ngom di nuyu tous les chargés de ma jël ko teg ko ci loxo El Hadj Lamine Ndiaye mi nga xam ne mooy suñu grand frère di nuyu responsable politique yu jigéen yi nga xam ne barki Dembo Ndiaye le huit wan nañ ne jigéen ñi war nañu mun a compter ci ñoom pour élection yi nga xam ne ca la ñu jëm pour ñu am ci une large victoire di beral nuyoo suñu mag Xaadim Xoll mi nga xamante ne nii intégré le conseil économique social et sortan sortant du département de Gossas pour nen kenn ci président Macky Sall responsable yi ku ci nekk à vos rangs titre et qualité maa ngi leen di nuyu di leen xamal ne ku nekk fa mu nekk gis naa ko ku lim doo juum da nga dul matal te damay bañ continuer ci loolu ba li ëpp lu solo ci wax bi ma ko wax ndax tey bi su jeunes la ñoom ñoo ko moom di sant di gërëm bu baax le frère Assane Dia mi nga xamante ne nii jeune Benno Bokk Yaakaar yëpp ñoom ñoo ko tànn ak consensuellement mu diriger cette forte mobilisation et cette organisation ci ak ci turu jeune département bi yépp maa ngi leen di féliciter engagement yi ngeen def ba mbooloo bi mënul teew fii ak département Gossas bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne bokk na ci département yi gën a tuuti ku mun a dajale mbooloo mu toll nii la victoire elle est déjà acquise en 2024 il n'y a pas de doute possible au niveau du département de Gossas pour le chef de l'État di beral nuyoo suñu frère Moussa Sow ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a képp ki nga xamante ne ni responsable politique nga nawloo nga ko ci wetu président Macky moom laa doon dégg muy wax dans un régime quand un régime te donne tous les honneurs tu dois le défendre avec ardeur ou t'en démettre avec dignité kon yow yow yaa ngi ci loolu yaa défendre président Macky Sall di défendre Birame di daj ñu dénk le jeunes yi ngay ànd ak jeunes yi fu ñu la woo ci Sénégal ci xaj ak seen nga de doo def xaj doo def seen nga dem ànd ak ñoom tey lii ñu dajale man maa wax ñoom day jaaboog ñoom mer tefur mbooj bu leen mobiliser jigéen ñi mobiliser rek rek jeunes yi ñu xam ne Gossas 67 pour cent c'est des jeunes gis nañ seen bopp ci politique bu président Macky Sall loolu moom moo tax ñu réussir largement ndax lu ñu siège yomb na waaye lu ñu doomu aadama yu ciy toog yombul ndax nit ñi fees nañ ci dell bay toog ci suuf ñeneen ñi taxaw kon nag jeunesse bi gàcce ngalaama man am naa yaakaar naka jëkk bi ñu may tàmbali di politique ñu ma Adama est-ce que tu es ma ne je suis riche de ma jeunesse je suis riche de mes femmes ñi nga xamante ne ni ñoo ma dar depuis 2012 ma dugg en politique ñu may ñu huit victoire ci département Gossas neuvième victoire bi ñu au soir du février il n'y a pas de doute possible ñun du ñu ay politiciens yi nga xam ne ñuy dajale fii mbooloo rek suñu paree la COJER va prendre les choses en main en relation avec le bureau départemental de Benno Bokk Yaakaar on va mettre, nous, les responsables politiques du département, les moyens à la disposition de cette jeunesse. La porte d'entrée pour la campagne de 2024 au niveau du département de Gossas, ce les jeunes. Ce sont les jeunes qui vont porter la campagne. Tous les moyens seront mis à votre disposition. Les moyens logistiques, les moyens financiers, les moyens matériels. Pour que le village, il est tout le département, il faut être fort apporter la bonne parole et la bonne parole mooy dañuy wéyal liggéey bi ak le président Macky Sall en 2024 incha allah. bon je parle au nom de la jeunesse pour juste dire les mots de la jeunesse gossassoise du département de Gossas mais avant loolu dañuy remercier les autorités yi nga xamante ne dañu nekk dans le département de Gossas jàppale la jeunesse. de Benno Bokk Yaakaar quand je dis la jeunesse de Benno Bokk Yaakaar c'est-à-dire la coalition le parti APR et tous les alliés ñu teg benn coordination boo xamante ne mon frère Assane Dia moom moo koy coordonné tegoon aussi un comité boo xamante ne moo un comité de pilotage ñu délégué leen ñu nekk un nombre de vingt quatre ñu defoon des rencontres avec les autorités à l'occurrence le maire et DG Petrosen Holding SA monsieur Adama Diallo bi ñu ko rencontré wax les mots de la jeunesse à savoir l'emploi des jeunes la formation des jeunes les financement des jeunes et la promotion de la jeunesse gossassoise mu am lu ci def joxe benn cinq millions pour bonne pour benn fonds d'impulsion à l'entrepreneuriat des jeunes de Benno Bokk Yaakaar du département de Gossas aussi waxoon li mu def ci emploi des jeunes ak li mu ciy waaj a def on a rencontré l'administrateur du fonds de l'habitat social monsieur Ousmane Wade mu ne dina jàppale la jeunes benn Bokk Yaakaar dina leen accompagner mais en ce le meeting il n'a de sous li yokk rek mooy le président de la république la ñu bëgg mu rencontrer la jeunesse Benno Bokk Yaakaar du département de Gossas pour mu jàppale leen ci question yi nga xamante ne ni moom la ñu soxla à savoir l'emploi l'entrepreneuriat des jeunes et la formation des jeunes et les financements des jeunes loolu la ñu bëgg mu yegg ci président de la république te jeunesse boobu yëpp tey taxaw fii Gossas ànd ko nag le coordonnateur départemental Benno Bokk Yaakaar bu Gossas suñu frère suñu ami le maire de la commune de Gossas par ailleurs directeur général Petrosen Holding SA monsieur Adama Diallo ma bëgg aussi ñu tàccul ma ñu ànd ci aussi ak l'ensemble des maires des six communes du département de Gossas kenn desul ànd koog le président du conseil départemental de Gossas ànd koog député de Gossas ànd koog haut conseil collectivité territoriale ànd koog chargé de mission yi ànd koog l'ensemble des directeurs généraux ànd koog l'ensemble des responsables politiques muy njabootu Macky Sall gépp ñoo yëkkati suñu loxo investir nañ Macky Sall le février le février vingt deux mille vingt quatre incha allahu rabi la jeunesse a dit oui au président de la république Macky Sall mooy suñu candidat tey mooy suñu candidat ëllëg parce que li ko waral Gossas xam nañ ko li ko waral Gossas xam nañ ko dans la mesure où ku xamoon Gossas avant 2012 ak Gossas en 2022 xam nga ne changé la te li ko changé mooy le régime du président de la république Macky Sall emploi vert yi kan ñoo ko gisul ci Gossas financement des euh, des jeunes plus de cent trente neuf milliardaires bi dugal na ko fi tey c'est grâce au président de la république Macky Sall muy ay formation étudiants yi tey bu ñu amee tey ñu naan université tey sax kenn ku ne xam ne mu ngi mel ne Paris c'est grâce au président de la république kan moo changé salaire u enseignants yi c'est président de la république Macky Sall tey enseignant bu taxaw ci Sénégal xam nga ne tey boo amee xool yeneen président yi fi jaar nga xam ne le président de la république ku mu respecté enseignants yi ku mu jox dëgg dëgg enseignant yi la kon nag kooku ñun moom la ñuy investir boo jëlee Gossas tey xoolal adduction d'eau ndox bourse de sécurité familiale yi ana ana suñu yaay ana suñu yaay yi yor ci de sécurité familiale kon nag loolu ku ko def ku ko def ñu xam ne kooku kuy jàppale sénégalais yi kuy jàppale tey Gossassois yi lu leen lee teew le président de la république Macky Sall moo ñu nommé un premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne le président de la république Macky Sall moo ñu nommé le directeur général Petrosen Holding SA monsieur Adama Diallo mu nekk doomu dëkk bi moo ñu nommé tey le directeur général Souleymane Kandji doomu dëkk bi kon Macky Sall ñun ñoo ko war a delloo ñu kon loolu moo tax ñun à partir d'aujourd'hui ñu ngi koy wax le coordonnateur Benno Bokk Yaakaar bu département de Gossas avec l'ensemble des partis alliés monsieur le coordonnateur départemental monsieur Adama Diallo à partir de demain la jeunesse va descendre sur le terrain dinañ la remettre douze mille votants yoo xamal au président de la république et à partir de demain commençant du parrainage au vote ñun dinañ wàcc xar suñu tànk tubéy te bu soobee yàlla dinañ jox un score bi nga xamante ne monsieur le président de la république mosu koo am ànd ak l' ensemble des responsables jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci département de Gossas. jërë ngeen jëf yéen leen di nuyu di leen remercier ci mobilisation bi ñu tey te nee nañ mobilisation ndaw kese la. Donc, bravo, vous avez déjà choisi le président Maxel en Monsieur le maire, kontaan nañ ci yow bu baax. Au nom de toute la jeunesse républicaine, au nom de la Cojer, je voudrais vous remercier et vous féliciter pour le travail exceptionnel que vous faites pour le président Macky la jeunesse Benno Bokk Yaakaar du département de Gossas di ngeen ko tee fii la du fanaan bu leen ko teggi 2024 yàggatul le président Macky Sall ku mat a jàppale la 2024 ñu falaat ko maa ngi le maire Dame Ndiaye maire de Colobane di nuyu monsieur le maire Mbaye et par ailleurs au conseil des collectivités territoriales le maire de Mbar di nuyu Silas Pouy le maire de Ndiémé di nuyu le maire Diaga di le maire de Wadiour di nuyu le maire Djibi di nuyu responsable politique yëpp ñi fi teew gis nañ fi l'honorable député Ndeye Dia gis nañ fi tous les chargés de mission du président de la république di leen wax ne tey dama def déplacement bi pour présider li nga xamante ne le meeting d'investiture par la jeunesse du président Macky J'ai vu une forte mobilisation ici à Gossas. Ça peut être signifié que la jeunesse de Gossas a déjà choisi le président Macky Sall loolu amul lu ñu ci lam-lame président Macky Sall luñ ko jàppalee des na parce que nag lu tax ma wax ko mooy moom amul xaaj ak seen dafa liggéey réew mi te nitu jàmm la nitu consensus la wut na réew mi ba am réew mi kenn musu ko dégg mu saaga kenn musu ko dégg mu xas kenn musu ko dégg ci lu ñaaw donc président Macky Sall ñun jeunes yi dañ koy jàppale ba deux mille vingt quatre ba ñu xalaat ko te bu bëggaatee leneen tamit ñu ne ci ñëpp a pare ngir jàppale président Macky Sall juróomi at yi dañ ko koy joxaat de en deux mille vingt parce que daf ko mérité man sama xel dal na te bu ñu fàtte itam lu ñu mobiliser wu mobiliser wu bàyyi xel mbindu mi ci sur les listes électorales parce que nag carte yi ñooy fale carte yi ci boppam ñooy fale te affaire bi jot na ndaw ñëpp nañu laxasaayu ñu ànd dugg ci communes yi dugg ci village yi ngir inscrire ndaw parce que toute la jeunesse est avec le président Macky Sall on peut le dire que ici à Gossas fii la raay bi li ma ci bëgg a yokk mooy bu leen kenn bu leen divertir le président Macky sera candidat en li tax mu légitime mooy ne la constitution le lui permet ça c'est un te texte yi bu ko permettre rek ñun ñoo ci des li ci des mooy le combat politique le combat politique c'est dans toutes les communes c'est dans tous les quartiers mais ça c'est dans tous les départements du Sénégal leneen li ce sont les réalisations que le président de la République a fait dans ce pays ñun bi ñuy jàppale président Macky Sall lenn lañ ko laajoon mu liggéeyal ñu réew mi te képp ku Sénégal xam ne Sénégal changé na xar kanam fii ci Gossas bu ngeen gisee ci biir dëkk bi te ngi ci biir fépp ci biir dëkk bi Gossas est-ce que amoon na fi avant le président Macky Sall ce sont les programmes du président Macky qui l'ont généré donc di ñaan nañu jàppale nitu jàmm jàppale nitu consensus mais jàppale aussi liggéey kat nag du kenn ku dul le président Macky Sall te gëm naa ne nit ñi xam nañ ko wante dafa am ay espèce opposant yoo xamante ne ñoom ci réew mi bëgg a jaxase xelu sénégalais te jàpp naa ne loolu duñ ko nangu parce que xammee nañ kuy liggéey ak xammee nañ koo xamante ne day coow rek coow guddi coow bëccëg te wax nag wax dëgg yàlla bu baree rek borom génn ci asaga chaque jour ngeen gis mu génn ci asaga moom Sonko dafa am nag ci beneen manipulation bi ñu nekk bi ñu nekk fan yi mooy ñu feebar feebar lu ñu simuler feebar ba ñu évacuer leen à bu ko defee ñu tardel procès bi te procès bi du tardé le 30 à la kulli dafa war a wuyu gis nañ avocat bi it nee na dañ koo gaañ te ñun ñëpp seetaan nañ mbir mi xanaa magum jëmm yu toll na ñoom bu ñu leen di gaañ xanaa kon avant ñuy génn seen kër leen gaañe kenn gaañu leen ay mensonge la ay sos la ay manipulation la te loolu sénégalais yi yëpp teg nañ ci seen gët dem hôpital tëdd nag du la tere dem wuyu ji mambay ñaa du la tere dem wuyu justice du la tere bu dee nee nga am nga preuve mais dama jàpp ne bu fekkente ne nee nga am nga preuve bu ñu la woowee tribunal mais am nga occasion pour setal sa bopp am nga occasion pour ne bu xeet rapport yi nga teg ko sur la table mais gëm nañ ne jamono ji guddi ji ñu ni Sonko amul benn rapport amul benn preuve day sos di jaxase xenu sénégalais yi nekkewu fi lu dul loolu te loolu nag wax dëgg yàlla loolu gañewul aw réew loolu gañewul aw réew di woo yi ñu góorgóorlu bu baax te xam ki gën ci ñoom ki gën ci ñoom mooy le président Macky Sall d'où ces manipulateurs hors pair là di wuyoo ay leader alors que ay xuusma ñàpp lañu du duñu dara nañu arrêté seen cinéma bi sénégalais yi comprendre nañu leen il faudrait qu'on soit sérieux dans ce pays ces opposants là ne nous ébranlent pas te vingt deux mille vingt quatre a ngi ñëw ñun taxawaay bii la ñu bëgg fépp ci biir département yi ci biir communes yi bu ko defee ñu joxaat beneen mandat au président de la république président Macky Sall